jigéen rolam ci kaw suuf moo ëpp doole bu góor loolu nun xam nañ ko moo tax dama doon wax ni ah, dégg naa seen discours yëpp ci journée jigéen ñeeg mais bu ma sañoon bu ñu posé seen problème ñu defe ko ni Maodo waxoon ndax dafa ne woon ñuy dale ci kaw di wàcc ci la ñu gën a gaaw a gis yoon bi ñu ni ko lu mel nan mu ni xawwa bi muy wàcc bokkul ak aadama fuñ ko wàccee ndax sunu borom ay bañ mu jàppe ko sang seetal loolu xam nga kooku du xalaat Kocc Barma Kocc Barma moom daf la naan rek jigéen moom na mel ni mbaxane woyofa woyofa mel ni mbaxane mu ñetti waaw loolu fu ko nit jëme Kocc Barma farceur la parce que <laughs> mooy dëgg parce que nga gis doomu jàmbur nga jël ko rek comme mbaxana mbaxana loolu fu ko nit teg mbaxana rek kese kese <laughs> loolu koy baaxul sunu maam Xawa toll fa mu toll ci jigéene ak taar ak bëgg boppam yàlla wàcc ko ci continent bu nga xam ne bu hostile la te mooy Inde élément yi tukkal ndox yu tukkal safara yu tukkal ngelaw yu tukkal dégg nga te xam na ko yàlla xam na ni loolaa fa nekk mais terewul mu wàcce ko fa parce que bëgg na mu xam ne yàlla rek a fi nekk loolu mooy li fi nekk loolu tax ku ku roy suñu maam Xawa dëgg-dëgg rek nekk jàmbaar wata na ko jigéen ñi roy nag ba mu wàccee sonn na lool seetal fu mu jóge ni mu baree sécurité ni mu baaxe ñu wàcc ko ci ndeysaan planète bu nga xam ne ay ay rekk fa nekk ay ay ay waaw ci jaan yeeg ci gaynde yeeg ci ngelaw leeg ci safara yeeg yëpp waaye mu muñ ko ndax sunu borom a koy orienté donte jàngul géographie mel na ni jàng na ko parce que wut naa wuta wut ba dajawaat ak Adam waaye ci la jóge xam ni responsabilité góor ak responsabilité jigéen benn la ci la ko xame ndeysaan ci la ko xamee mu mel ni kon bu jigéen ñi nattee seen bopp foofu rek daal di am solution waaye yii ma déggoon ñu di ko wax ëpp naa wax sax parce que daf dul sotti dafay nekk dawr ak tasalsul dafay nekk dawra ak tasalsul la ngeen jàng ci seen ibnu Ashar parce que théorie bu dul ak dafay nekk dawra ak tasalsul rek baaxul baaxul baaxul parce que la ma waaj a doon xas ni ma yéen seen théorie philosophie religieuse ça ne débouche que ma lan de grand bassam

ba leen ci natte rek ñoo xam ni seen responsabilité rëy bi ci des mooy li yonent bi wax nee na néegu couple këru couple nee ñaari lal rek fa war a nekk lalu ku jigéen gi bu soxlaa boppam wéet lalu ku góor gi bu soxlaa boppam wéet nee na lal bu ko ñetteel ne iblis tey fanaan <laughs> waxul iblis dëgg-dëgg waaye bàjjëm bu ca fanaan sax iblis la bi loolu mooy ci nekk lay ndeysaan moom bàjjen bu ca fanaan sax booy ba xam ni iblis piir la ndax balaa jékki def fa musiba wala wax xam nga loolu nag mooy problème yi waaye yii jigéen ñiy wax kooku du du problème ma jaay sama akara ma def ko lii ma raxasal ko tànkam ku la sant pour nga raxasal ko tànkam ni ko mës nga gis góor guy raxasal moroom ma tànkam fu ko mës gis ni ko sant ah, loolu aada la baaxul ma ko xanaa yow moom du jàpp ah ma ko loolu kenn du ko def